te ñun mu leer ñu ne def gi mu ko def kat suñu njariñ lañ kon kenn yokk ko kenn wàññiwu ko wutu ci di yokk wutu ci di wàññi li mu doon da doon waaye ñun bindee fi la bëgg a jariñ moo waral mu tegoo nattu yi bu ko neexoon kat du ko tegoo waaw ndax biro numéro 4 foofu ku fa dugg génn ñu jaarale fan la jaarale bu ñëpp waxoon la mu wax kenn du leen sa gëm waaw dama ne julli ci géej gi waaye na sama bàyyi dem jël sigaar dem sànni ci géej gi jéem a julli xool waaw kon mu suux waaw Serigne Touba moo amul morom waaye nag du fi jóg Serigne Touba du fi jóg waaye ki dinaa fi toog ñeent téeméer di leen dàqal di leen jañal lor di leen téeméer at la wax waaye foofu lañu war a xamee ñun nit xam ni ki ñu amal affaire du nit ndax ñeent téeméeri at ca booba ba tey ji te tey maam maam dafa ma xam-xamu ma xam ni loolu mu wax da koo wax ndax ñun ay nit lañu fa ñu toll rek waaye moom weesu na loolu ndax ki jaamu yàlla ñetti téeméer junni at ah, téeméer junni at te boobu aadama ak amul besitu ban ba ba ñu sàkkee aadama bu bu njëkk ba mu mën koo génn xam ngeen ni kooku nit nag moo yàlla moo bindee noo xam ne ay mbiram bu ñii di bañ ñii di nangu bu ñii gëmee ñii wet ndax mbirum yàlla ak loolu ñoo ànd faw yàlla mu tegee yi fi noo xam ne faw ñii di bañ ñii nangu loolu mooy tax nit ñi mën a xam dooleem ak gàtt na ñoo xam ne tëlewul dara waaye nit yii la nga xamante ni sëñ bi

waaw bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu amee tawféexu réeréewuñu seen Touba waaye moo ñu dimbali mooy làmp nga léegi waaw ñuy dem ba Serigne Saliou yeesal maanaam Serigne Touba yeesal ki Serigne Saliou te li nga xam ne jur wala ma Saliou bi tey ba gis ko indi Saliou nee na Saliou wayu ma maay Saliou la wax da ne maay Saliou maay Saliou la Serigne Touba wax da ne moom mooy Saliou Saliou yeesal yoonu waaye dama ne mu nga àpp mu àpp la mu ne couleur mu ne da ko yóbbu ah loolu yeesal day fekk ko loo moomul amoo futu bu yeesal ko munoo àpp ba noppi dem sol ko wala nga ne fa ma jëm kat damaa bëgg soppi couleur bi ndax couleur bi kat boobaa sol naa ko dem soxlaa ah. ndax da ngaa àpp te ku àpp dañ la ko joxee boo paree nag day delloo waaye nag ki ñëw nag yeesal yoonu murit nag daan na jox leen ma ndaw yi ma def si ñoom la Serigne Touba defoon ca mag ña moo xam ne dinañ def nii daf leen ne ah ñun de bu ngay jiñ ba moom mu ne donte yelloo ko ba ma bàkkeeloo ko waaye lu muy bàkkeel la mag ña la Serigne nga génn si dënn la génn nga gis ak sa bët jaxalee lu mu rëy rëy sëñ Saliou loo xam sëñ bëgg de da nga ko jàppe ni dox yi wadd ci diggante ñaari ndab yi tax li ma def ci yow ku du yàlla sama borom xamul te moo ko ci def te nee na li mu ci def ku du yàlla xamu ko te moom sëriñ Saliou loolu ngeen da ko yaay man may yow sëñ Béthio fi mu toll nii la àdduna commencé di yeewu ndax ñu ko dañoo defoon day foo waaw ndax day tëgg ba ba waaye waaw yoon bi képp ku ko mës a woone sa wooteel yàlla am nga feem boo boo boo teg ngir ñu wuy si nga jariñ leen waaw Serigne Beto daal di xàll yoon cat def ko muy diineem te yàlla digaloon wante yàlla daaw la ak ñooñam wala daaw da jëf leen ak cat sëñ Beto ñoroon xëy benn suba rek nee na yëg ba cat diggante ba sëñ Saar bi ci xew li ko defal mu togg ay berndeel yëpp ci ay oto jël mbokk ya dëkkandoo ya njaboot ga am di jàng yooyu ñëpp yëpp ci oto yi yóbbu got nee na ma fekk sa nangu ku duggal dàll ci biir kër sëñ Saal mosu ko nag da ko mës a kenn kaalaw ak mbaxane ak dàll ci biir kër sëriñ Saal sëñ ko nag mu jub sëriñ ndax boobu góor ñaak jigéen ña mag ñaak ndaw ñi ku nekk ngi di tëbaka dàll ndax suuf si Oceano. taw sa ñax neex te doy waaye lépp lay lépp looy law la lewatal nga doon loo xam ne day fekk lu dul ba togg sa di ko joxe la sant yàlla ci lim la def la cant gi seen béykat ànd ak ñu cant Rama